Thank you. さあ声優寸胴 bonsoir chers téléspectateurs asalaamaaleykum mbokk ci xëy ji tàmm seetaan émission préférée muy l'Oeil du Tigre dal leen ak jàmm ci biir émission bi comme tous les jours miin ngeen suñuy façon miin ngeen suñu yëf xam ngeen ni du ma ci wet benn yoon tous les jours je suis accompagnée d'un excellent champion je suis accompagnée d'un consultant ànd naa ki nga xamante ni moom mooy le meilleur bu la décortiquer lamb A ba Z amatoo lenn loo ci wax lu dul no comment bonsoir mon consultant. <laughs> bonsoir ma Niès. ma ne delloo nuyoo nga sargal bu baax a baax a baax. li ñu mbokk téléspectateurs yi duñ fàtte mu diaspora bi asalaamu aleykum Babacar waaw champion man euh, maa ngi nii ah, ci rond point bi waaw boo ñëwee ba Ngor gis nga rond bi waaw da ngay jàpp sa droit waaw d'accord boo jàppee sa droit premier premier deuxième mbedd deuxième mbedd case santé bi fa ngay jàpp boo boo jàppee mbedd gendarmerie bi nga continuer soo continuer am na benn bu nekk foofu après mu dugg ah. immeuble waaw immeuble bi ñoo ngi ko sotti benn jal suuf bu xonk boo ñëwee foofu rek foofay sànjal maa ngi sànjaloon nii. waaw kon c'est bon ok. léegi ma liggéey fekk madame bi dafa xëyoon wàcc ñëw fekk ma liggéey liggéey ba rafet mu kontaan si. bu ma ko Moussa Fall mu yëkkati trente mille francs mais juróom trente mille mu mel ne nga jox ma ay trois millions xaalis bu bari si man. waaw mu nekk lu bari si man nag ma kontaan si loolu si météo loolu laa gën a loolu bokk na si loo xamante ne lu ma neex la. ma yàkkamti nag pour àgg suñu kër ba woon ko dama ko man dama moom dama la expliqué ko ko madame ma ko may papa bi ñëwaat wax mu doo ko gëm ma ne ko léegi jël leen parce man lu ma mënta am dama koy bokk ak samay waajur ñaata neen la daan fay journée. dama doon fay quatre mille cinq cent. quatre mille cinq cent waaw dama doon fay. mais des mu jox ma cinq journée cinq mille. Mhm. sans départ rek sant ni muy demee. tabaski mhm. di ñëw desay un mois may liggéey di denc liggéey denc. ba mu dëkk bi neexul. ñu si banlieue bi lañ dëkk. Mhm. man du ma man dama fiyaatu fi ma dëkk banlieue bi man fa laa dëkk yëmbal. dama si kontaan. waaw du ma toog naan fee laa dëkk man banlieue bi yëmbal laa dëkk. ak waa Pikine xam nga tamit tabaski di waaye ñëw. mu nekk lu metti suñu biir kër mais jamono dëkk bi metti na demeewul noonu presque jot ma jënd xar indi ko. Hmm? indi ko sama papa jox jour laa njëkk jënd xar indi. ndeysaan. waaw mu nekk lu ma neex mu ñaanal ma si yaay kontaan si ñaanal ma si mu nekk lu ma neex ba léegi nii fu ma toog dama koy wax. Hmm. waaw loolu bokk na si lu ma gën a neex si ñoom ma defal leen ko ñu kontaan si. tey lan ne mën a partagé ak yow Cobra ci loo xamante ni vivre nga ko. wala dund nga ko loo xamante ni que jaar nga ci mu metti li ngay wax ni tontoo ma la mais sama xol bi moo ñu fees fu mu nekk nii. Hmm? sa xol. man ku ni woon sa mu sell woon dina gas ba mu xool suloon dina. sama ñaar waajur. Hmm. waaw dama leen di ñaanal fi ñu tëdd gën a leen fu ñu jógee ak mboole ak képp ku fu mun di tëdd. dama doon toog muy metti suñu kër. te su ma amul lu ma gënal jaamu pexem yàlla dóoram su ma amul lu ma gënal ñoom doon kay fekke ñu jox ma avance ma tëju sama néeg toog tiim xaalis bi di jooy. may woo sama benn booy boo xam ne yaa lañ koy wax maa ñoo bokk ne ak Mohamed dañuy toog ma leen koy wax ma ne leen xaalis bi léegi xoolal yi. sa waaju fekke wuñ ko. mais lu yàlla def nag looloo gën mais maa ngi koy sant yàlla di leen ñaanal fi ñu tëdd yàlla xare leen àjjana ak ñi fa tëdd ñëpp. sama yaay tey bu liggéey lan nga ñuy wax. métier bi allah ma métier bi moom macha allah amul dara lu moo ko yàq topp làmb ji ba abandonné métier bi te dafa jotoon tamit xam naa ni mu topp làmb ji. mais bi muy fekk fekk nag métier mokk na ba pare moom bu toogalee defulee dara tamit su ma amee chantier woo ko mu ñëw jàppale def may mu coûte mais moom tamit. comme nii tey waaw. fi ko fekk nii muy ñëw di liggéey. nii ba nii. Mhm. suñu toog toogee nii rek bu deful dara ma woo ko wala liggéey bi xaw bari ma woo ko. kaay jàppale ma mu ñëw jàppale may ma coup de main. moom ba léegi parce que yar boobu moo nekk si moom ba léegi. dara changé wul si moom. merci à toute euh, l'équipe technique merci à mon caméraman euh, allié allié Mbaye Mbaye Mbassou sama xarit et le grand réalisateur hors pair c'est tonton Mbaye Fall merci à tous les téléspectateurs de la TFM c'était rubrique métier sur la TFM Sidath vous donne rendez-vous mardi prochain.

Joal Fadiouth ñoo ñëw euh, ñëw nañ ci dëkk bu ñuy wax Mbour Mbour nag fii la li li li ko nekk laay booy tegal mbër yi 5 millions 5 millions nag euh, poids lourds am nañ 360 euh, am nañ 360 mille ku daan da nga am 2 millions 100 ku daanu am 1 million 100 quart de finale demi finale am nañ 160 mille huitième de finale am 10 mille poids poids léger nañ leen 9 millions 900 mille. ku daan première place am nga 500000 ku daanu 260000 quart de fi euh, troisième place am nga 50000 quart de finale 10000 huitième de finale 5000. Euh, kenn mënut a wax lu poids léger yi toll encore fu mu nekk nii nag maa leen di ak euh, tambour major Mor Ngom ak Mbayang Loum ñu dem ba ca kanam seetaan lu xew. assurance daan na ko assurance daan na Adja jël bu sa tuuti ko Ali Mbaye Fall am na ngeen ba tey oh, Ali Mbaye Fall daan ko jël bu sa tuuti Ablaye ko Ablaye jël ko Ablaye jël na ko Ali Diouf Ali jël ko oh Ibrahima Ndour Fatick jël daan ko jël bu sa tuuti campement l'an 2000 Sélé dem na Sélé jël na l'an 2000 Sélé oh Sélé mel na l'an 2000 jël na bu set wécc. Reug ah! ah! Reug Reug Reug mboot naa na jël mboot oh, mboot moo xam ne kenn mosu koo gis. Boy Faye. Dakar daan na Fodé Sarr Palmarin. Émile François Gomis jël na ko. Gomis jël na ko. Émile François Gomis jël na ko. Émile François Gomis jël na ko. Émile François Gomis daan na ko jël bu leer nañ. Boy Faye mel na kuy dem waaye demut. ah. Reug daan na ko jël bu set wécc. salaamaaleykum Reug Reug. c'est le meilleur Reug Reug. c'est le meilleur Reug boo ko daanu dootoo ko daanu. wallaay waay c'est le meilleur Reug Reug. c'est le ko. Reug Reug na. ma nga ca ñetti am bi. ma nga ca ñaar. c'est le meilleur Reug Reug. c'est le meilleur c'est le meilleur profite. Sélé Méné profité occasion bi balaa temps jeex. Sélé Méné Sélé Méné profité occasion balaa jeex. Sélé Méné profité occasion. Sélé Méné profité jeex. Sélé Mélé takk na ko. Reug bañ na. Sélé Mélé peese na ko sant na ko. Sélé Mélé daan na Reug Reug. Sélé Mélé daan na Reug Reug. Su ñu naan léegi sa kumpa fay Mamadou Mané. Boo tey dara xewagul. ah jël na ko oh Seeku ba fay na ko jël mu set wecc différence de poids caxabal ba Mamadou Mamadou Mané démérité parce que bëre na bëre Mele Kampoma ak euh, Abdoulaye Wilane Ndoye Libidor bu Grand léegi nag ñaar ñi ñoo war def comme euh, final jóge nañ ci poste deux minutes ñëwaat arbitre bi si loon na diggante Sélémélé Campement ak Libidor Grand fan la stade municipal Mbour waaye final ba ko bugg a saboté parce que ñaari mbër yoo xam ne kenn deful action mel noo xam ne dañuy contact boo xoolee ba xool ni mu tudd Libidor Grand Mbolo Mamadou Moustapha Sène Sénémélé Grand Mbolo donc Sénémélé Kampumane Grand Mbolo kon i and e ñoom ne waag ke parce que Libidor ten jamu ñoom ne par point naaga yo woon fii Mbour lamb ji jeex na diggante Mamadou Moustapha Sène ak Sénémélé Kampumane doon def final mooy mbayang lum woon tegkati Mor Ngom kan moo tegoon lamb Luc Nicolaï moo jëlee lamb 500 millions bu ko ci ba 10 millions. lamb ji jeex na fan la amee woon stade municipal bu Mbour ku ko jël Abdoulaye Wilane Ndoye Garaaf Mbolo moo ko jël ci euh, Mamadou Moustapha Sène ñu naan on naan Sélémélé campement jërëjëf Aliou Mbaye jërëjëf TFM jërëjëf Luc Nicolaï jërëjëf Mbaye ak Luc jërëjëf Mor Ngom jërëjëf supporteur bi. Son vrai nom, c'est Yahya Diop. Le surnom de Yekini, c'est parce que la ressemblance physique avec l'ancien footballeur nigérian est flagrante. Yahya Diop Yekini, le plus beau palmarès de la lutte au Sénégal. En 25 ans de présence dans les arènes, il n'a perdu que deux fois sur 22 combats. Très fier de moi-même. Très fier. Après quinze ans de règne, qui va faire encore quinze ans de règne dans l'arène. La lutte gréco-romaine, c'était aussi son fort. Plusieurs titres sur le continent africain, mais jamais de médaille olympique. L'un de ses plus grands regrets, sans doute. À ans, le natif de Joal raccroche alors qu'il lui restait encore trois années pour atteindre l'âge plafond, c'est ce que dit le règlement. Mais le désormais ex-lutteur ne voulait pas finir comme certains grands champions qui n'ont pas su arrêter à temps. George Foreman, tu peux pas faire tout. Pour moi, c'est le moment, après 24 ans de carrière. Cependant, la retraite totale, ce n'est pas pour tout de suite. Yahya Diop enchaîne avec une reconversion. Il devient promoteur. Désormais, il va monter des combats de lutte traditionnels. Babacar Fall, Dakar, combat bi ngeen gisoon bii passé léegi muy premier jël la Yanda dafa ceinturé deuxième jël bi aussi di gis ne kii di Marley dafa dem ceinturé ji. ci biir ceinture bi nag ki nga xamante mooy Marley daf ci génn naan feeling parce que bëree mën nga jàpp tànk ceinturé daan sax te mais xoolal ma Boy Sarr euh, du moins euh, Marley ni mu ko ceinturé ba pare di njëkkanteeg moom euh, positionnement des jambes parce que positionnement positionnement des fa important importance def ci action bi ceinture ne ko foog tànkam nekk ci kanam moom Marley mu jël tànk bi dugal ko ci xànd tànk ya Boy Sarr comprendre na ko pourtant de di képp tànk yi boo xoolee Boy Sarr képp na ñaar tànk yi mais terewul rek Marley dugal na fa tànk ba tànk bi muy dugal na bi mu yëkkati moom Marley mu nekk ci feu action bi ak ceinture bi mu ko ceinturé mooy indi action bi tànk ba mu dugal ak ceinture ñu nga jëm suuf actuellement bu ñu ko sànnee yi ci pelu aussi dafa continuer ak action bi moom ci kanam parce que bëri actuellement ci kanam la ñoom ñaar ku dugal si tànk ci biir rek yaa avantage mais nag moo njëkk a tànkam moo delluwaat encore dugaat tànkam mais mu ngi ko séntu séntu boo xamante ne xool booy Boy Sarr actuellement lâché na xool loxo Boy Sarr ya jàppatul dara xool ma loxo booy Sarr yi jàppatul dara même loxo Boy Sarr bi nekk ci biir nii jàppul dara lenn werante alors mon consultant léegi dañuy daal di ñëw ci loo xamante ni ñu ngi ko tuddee hommage à Adjaratou Déguène Chimère. ñi ma koy annoncé du ma jooy euh, damay jël li ma metti ma daal koy def ci sama biir xol bi parce que bu fi nekkoon tey dina aimé gis ma ak un grand sourire dina ma bëgg gis ak li nga xamante ni moom mooy joie de vivre donc noonu laa koy rendre hommage noonu rek lañ koy daal di defal fii ci ce plateau euh, seen émission l'Oeil du Tigre. daal di seetaan ay quelques images ci moom daal di jël si waat maa ngi leen di sargal bu baax a baax du nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan bu yëpp rubrique bi ma xam ne moo ma gën a intéressé ci l'œil du tigre mooy allo docteur allo docteur nag lu tax mu intéressé ma dafa fekk ni innovation la émission làmb yàgg na fi am ñu inséré ci allo docteur loolu moom lu ma neex la lu tax parce que dina permettre mbir mi nga xamante ne mi ngi bëri. am opportunité wu xam li mu war a def ak li mu warul def lan moo baax ci moom ak lan moo bon ci moom lu ko sport permettre ak lu ko sport permettre ndax bu ñu fàtte ne bëre jeex nga xëy suba nag mel ni Tapha Gueye war a def après bëre bi lan moo fa nekk ci sa wàllu wér-gu-yaram donc allo docteur daal innovation boobu musta am dëgg-dëgg gàcce ngalaam euh, li ma intéressé loo xam ne gis naa ko mbër def ko mooy jeune boobu ñuy wax Malick Niang parce que sportivité ak non violence loolu dañ ko war a prôné xam nga nga nekk champion ñu naan mosoo am défaite pronostic yëpp jox la victoire nga xëy suba Ama balde daan la nga jug suba euh, nga jug tàccu Ama Baldé dem ba ci moom félicité ko gestu nag xool say fans ak say supporters nga leen kenn liggéeyu bésu daanu dafa ñëw rek ma daanu mérité na victoire am nañu ànd ñu ñëpp félicité ko du liggéey du dara loolu gest boobu mu def dama toog sama néeg bu baax a baax di ko ñaanal parce que dañu toll ci réew mi foo xamante ne dañu soxla discipline fa tabakalla macha allah ci jeunes yi te keroog jooju prôné na discipline prôné na non violence prôné na sportivité boo xamante ne daal man dëgg-dëgg lu ma yéem la kon félicitation à Malick Niang alors gis ngeen li nga xamante ni moom la ñu indiloon ci maman Déguène Chimère euh, gis ngeen li nga xamante ni moom la doon prôné à chaque fois euh, nekkoon yaayu kër gi nekkoon ki nga xamante ni bëggul woon kenn am lu ko metti ba maanaam émission yëpp buñ daan commencé dara dañ ko ci laaj xalaatam laaj ko ci avem nekkoon nag ku jege woon trop ki nga xamante ni moom mooy concepteur émission bi muy tonton bay Fall. ba mu demoon waxtaan ceeg moom mu gis waxtaan li nga xamante ne moom la gisee lait du tigre ak yi nga xamante ne moom la gisee allo docteur muy rubrique yoo xamante ni ci lait du tigre la bokk donc euh, fàttaliku nañ yi nga xamante ni moom la fi doon jëfee di ko ñaanal suuf sedd bu baax a baax a baax a mm. baax ci ci ci kawam tonton Tafaar mi lay bàyyi nga àgg. <clears throat> inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun soxna dëgën sa soxna dëgën chimère yàlla na xippee àjjana Adja Déguène Chimère yàlla na ko sëñ Touba teeru Adja Déguène Chimère suñu xel dal na ci moom man nag su may nettali damay nettali loo xam ne dama ko dund ak moom en live saa bu mu saan daje ak moom ci entrée bi dafa daan génn émission am jeex mu génn dimbali nañ ci biti derrière nous ci ginnaaw tam ay ñoo xam xamante ay néew doole lañu ñu daan taxaw fii di xaar à chaque fois Adja Déguène joxal ma faama mouchoir foofu dañ joxal. faama. faama bu ñu bu ñu yàq émission bi dalal tuuti rek. dafa dafa am gën dimbali ay nit dimbali ay doomu aadama si ginnaaw fii dafa ma kar benn bis ne ma ah Tigre kenn du xosiwaate tey nag afam góor gi ne ci ginnaaw fii man de joxe naa ba li may doon jeex ma génn am góor gu taxaw fii kat góor gi sax war na am juróom-ñaar fukki at ne soxnaam dafa am doom mu war a génn maternité. war a fay six mille cinq cent man tam ma génne jox ko li ma koy jox mu ne ma non non joxuma ko yaa ko jox téye sama loxo ne góor gi Moustapha Gueye moo la ko jox xam nga dëggal ci yaatoom ak neexam rek na ko champion du monde xam nga Moustapha Gueye góor gi ne ko ah kii xam naa ko baax a baax man noo am la ma dëkk mu jël xaalis bi jox ko ko noonu la dëkkeewul nag tous les jours avant son émission ni ngi dañ ko fi xaar après son émission ni ngi dañ ko fi xaar yàlla dogal na aussi mu daan jëf ci kër gi loo xamante ne aussi euh, le père fondateur de cette maison mu Youssou Ndour sax xamu ko médiation bu doon def ku nekk xam na ne kat place bu mel nii bu fi ay 300 personnes di fi daje jàppante du ñàkk xuloo du ñàpp tongante du ñàkk mais Adja Dégène nag ku mos a tongoo mbaa xuloo chaque fois da nga fekk mu teg ñaar kenn toog fii kenn toog mu wax ak ñoom loolu moom ak dugg ci bureau yi fu ne mu dugg fa nuyoo man sax sama yi ñuy coow naan waaw ah, loolu moo nekkoon si Feeling nag tànk bi nga xam ne weccax ak yu mel noonu nga xam ne dafa dund àddina lépp ba mu mat sëkk mais man nag damay jàpp ne rek moom envoyé la woon yàllaa ñu ko envoyé woon rek mu ñëw am mission bu doon dox bu gàtt nag gàtt na gàttul ndax bu muy làqu gis ngeen ne cinquante ans la am dëggan maa ko mag sama génération la mu ne ma yaa tax ma njëkk a dugg làmb ci àddina te ma 66 ak léegi sa fait cinquante ans Adja dëggan maa mais ñëpp yaa leen koy wax ñi ko max sax yaa leen koy wax loolu nag jagle yàlla la donc daal mën nañ cee guddal mën nañ cee seet li ñu ci mën rek moom mooy ah ko ñaanal yàlla suufu Tuubaa ef ci kaw am nañ ci moom yaakaar nag ndax jëmam ci àddina ndax ñi mu labal ñëpp rek bu ko ci kenn ku ne rek yàlla dina ko ful ci moom mu xippee àjjana nag ah yaa bu xippee àjjana nag aussi faama yàlla na fa jek sëriñam bu baax bi nag di maître baabu di jëkkëram ndax li mu témoigné fort na réy na trop waaye yàlla nekk yàlla Adja Degene Chimère nekk soxnaas ulul ay ni ki nga xamante ne moom mooy Adja mooy mooy euh, maître Babou salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu c'est bon. merci euh, loolu la ñuy jeexalee ci suñu maman Adja Adjaratu Degene Chimère yàlla na ko yàlla xare àjjana ajana yi gën a kawe